kon su ma la déggee euh, nanguwaat mbir mi ci West Africa du luy jafe. bu ñu sukkandikoo ci li Ablaye Wade defoon bu ñu sukkandikoo ci Ablaye Wade. Mm. li mu defoon ci digg ci li mm. fi Abdou Diouf jógee. Euh, société bi waaw mais mais est-ce que aussi euh, yaa ngi gis volonté ci ki nga xam ne moom mooy le nouveau directeur général. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi gis volonté est-ce que fi mu jëmee mbir mi foofu la exactement. non le nouveau directeur général. baal ma ci dog bi daane la. waaw. Aïcha le nouveau directeur général. moom ak euh, Pape Demba Bitèye ak Moussa Dieye bi fi nekkoon. ñoom ñoo def loolu. contrat yooyu ñoom la fi fekk. maanaam dañ faa dañoo tabb koo xam ne moom li génn. loxoom da cee takk bopp pour mu gën leer. moom dafa comptable la la ci li lu bon li ñuy wax. li nga xam ne. Mhm. Sénélec dafa summeeku ci responsabilité bi ñu ko jox mu nekk la société nationale delectricité mhm. yebbeeku ci ay producteurs indépendants yoo xam ne dafa nëbb ay intérêt ak ay anciens de Sénélec comme un ancien ministre comme un ancien directeur comme d'anciens des ingénieurs ñu ngi ci gannaaw West trente cinq ingénieurs u ñoo nekk West Africa Energy trente cinq ingénieurs loolu naka la ko nit mën a comprendre donc ñoom Pape Toby Gueye l'actuel directeur général ñoo ci yem responsabilité ak euh, bi tey bi nga xam ne moo nekkoon moo nekkoon mm-hmm. directeur général bi ak Moussa Dieye mi nga xam ne moo njëkkoon nekk secrétaire général bi avant Pape bi Gueye mhm. parce que Moussa Dieye boobu moo contresigné contrat yi ma lay wax yëpp ci battu turc bi ci fourniture fuel bi euh, ci centrale yu bëri ñoom ñoo signé euh, affaire yooyu may fàttali rek ni Samuel am na ci ay convention euh, producteur indépendant yoo xam ne moo ko signé ba mu nekkee directeur moo ko signé tam ba mu nekkee ministre de l' énergie mhm. moom am na am na ñu mu samp ñu mu signé foofu donc y' a beaucoup d' intérêt qui gravitent autour de Senelec oh. te loolu l'actuel directeur mm-hmm. est comptable de cette gestion là kon mm-hmm. kooku tey jii mm-hmm. bu ñu dugaloon mission d'audit foofu ci moom lay jaar day nëbb carte gi d'accord léegi est-ce que tey euh, li li ci am yëpp ba ki nga xam ne moom dafa comptable ñu falat ko mu nekk fa ce qui est sûr mooy kon buy réglé wu logiquement peut-être du réglé ci moom déedéet waaw est-ce que tey fi mu toll état bu Sénégal le président excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye le premier ministre Ousmane Sonko. ministre des mines énergie et tout ça. Mm-hmm. est-ce que ñoom am nañu mooy yu ñu mën a teg pour lijjanti euh, échec yi nga xam ne Sénélec daf ko échec. Mm-hmm. bu ñu dégloo ci li nga wax. Mm-hmm. ndax koo xam ne dañu laa sant pour nga produire pétrole euh, euh, produire énergie. jaay ko yow ngay bëgg di jëndi di jaayaat nit ñi. ci biir def bénéfice waaw. te te ci loo xam ne ni yow sant ñu nga am bénéfice. est-ce que tey kii fi nekk muy Bassirou Diomaye Diakhar fay excellence moom am na mooy jaar foo xam ne bu fa jaaree dina mën a lijjante Senelec tegaat ko ci loxo yoo xam ne sénégalais yi dañ mën a jote ci courant ci njëg goo xam ne dëgg-dëgg dina tolloog seen man-man ah bien sûr parce que euh, forcer Senelec muy euh, produire bañ di jënd di jaay nit xam nga xam nga vocation Senelec mooy mhm. produire mhm. Mhm. électricité ba noppi nit ñi nguur gi bu mu foog ni rek ku jóge Senelec rek mën a yor Senelec parce que Macky bi mu bëggee régler problème Senelec directeur de cabinet am dafa yóbbu Matar Cissé douanier la Matar Cissé um. musul woon liggéey Sénélec um. te redressé na ko um. donc euh, Samuel Sarr mosul liggéey Sénélec nekkoon na directeur ay ñoom Samba Diallo ay ñoom Louis Alexandre directeur yu njëkk ya kenn musu ci liggéey Sénélec c'était des administrateurs civils yoo xam ne dañ leen affecté woon Sénélec pour ñu gérer société bi parce que gestion kese la léegi nag lu mel noonu lañu ñu war a defaat pour mën a def audit du secteur de l'énergie et audit du de la Sénélec Sénélec mm -hmm. il faut ñu auditer ko parce que contrat yi boo gisee ma publier ko mhm. pour kenn bañ a ni yëgul tinul mhm. te duñ ci yem parce que euh, Claire Vision dina déposer pour ñu saytu ko mais je crois que audit moo doon gën mais euh, est-ce que Pape Toby Gueye mën na def auditu Sénélec moom mi nga xam ne ah, moom la ñu war mhm. moom il est comptable de la gestion mhm. euh, ancien secrétaire général bi ñu defal contrat de consultance foofu tamit il est comptable de la gestion bi tey bi nga xam ni mooy fay doog a jóge il est comptable de la gestion mhm. ak yeneen cadre yu bëri il sont comptables tous de la gestion xanaa dans dans ce cas xanaa état dina mën a jël ay auditeurs externes ay auditeurs externes bu ko defee ñoom ñu dugg fa auditeur ko société bi très bien audit externe la ñu war a def boo xam ne dañuy évaluer mhm. préjudice bi parce que bu ñu duggee rien que ci fourniture carburant Senelec li muy jël ci carburant ay milliards nee naa la bateau bi rek cent neuf milliards bateau bi kese. Hmm. waxul ma la ak yeneen centrale yi jox au loolu ñaata la ci ay milliards centrale lu Sendou bi fi mu nekk nii dafa am problème. Hmm. ah euh, est-ce que nekk ñu di ko di ko di ko jaayaat. Hmm. mook Tobène loolu maa ngi leen ciy indi lu bees tàq semaine bii di ñëw. ci Sendou. ak tóobeen parce que liggéey bi dafa des tuuti rek mais ñu ngi ci tànku teg ko ci yeneen i loxo encore ci jamono ji nga xam ne ñun ñu ngi lijjanti pour senelek teg loxoom ci production bi ñoom ñu ngi ciy bëgg ñu ngi koy bëgg paasantewaat encore te foofu aussi gis nga Ablaye li surfacturation bi mu wax euh, rapporté ko ci ay euh, euh, information yërim ci marché charbon bi alimenté euh, euh, nu mu tuddati sendu mhm. te ñun moo ne am nañu charbon am nañu tur gis nga euh, l'ancien ministre de l'énergie Samuel mhm. mës nañu am waxtaan ci centralu sendu mhm. ma ne ko mais tout bu Sénégal mu ni ma waaw mais dafa faible en teneur calorifique maanaam tàngaayam dafa des mm-hmm. il faut ñu jël euh, trente cinq pour cent euh, nu mu tuddati euh, charbon buy jógee Afrique du Sud mm-hmm. boobu Afrique du Sud la ñu ciblé woon pour mélanger ko ak tour bu Sénégal mm-hmm. mais léegi cent pour cent la ñuy exporté laaluñu dara Sénégal ñu dara dara dara Sénégal léegi ñun ñu ngi nekk producteur de gaz parce que Sangomar muy ñëw léegi mais ñoom dañoo bëgg exporter GNL pour dawal seen centrale bi nga xam ne moom lañ leen war a fay cent quarante milliards par an muy West Africa Energy donc choix yooyu ci ñun lay lay lay tombé te wax dëgg yàlla boo gisee ma ci xar sama tànk tubéy parce que dafa ma leer mu biir ma ni ma kilowatt heure bi ñuy jaay ay cent cinquante ki cinq cent mën na jar juróomi dërëm et puis c'est pas du rêve c'est pas de la démagogie parce que euh, Manantali vingt cinq francs lay génne ñu koy jaay état bi cinq Euh, champs solaire yi soixante onze francs la la fay la fay génnee te ñun dañu am subvention champs solaire yi euh, Toben Power euh, même chose donc mën nañu am une énergie beaucoup moins chère parce que man mënuma comprendre ñu jaayee li nga wax léegi sax parce que dégg nañu moom Amadou Ly mhm. borom ak kii li mu daal ne Sénégal ñett mbir yi produire euh, courant lépp lépp mm. lépp mm-hmm. ci Sénégal la fekk baax donc cherté bi euh, net nettaliwul ne dañu ñàkk li war a produire courant mm-hmm. mais volonté moo moo amut ci ni ma dégg ay mm-hmm. waxam volonté moo amul mooy amuñu nit ñoo xam ne euh, maanaam am nañu xam-xam bi mais nag dañu mel ni sax ñu ko iñaane Sénégal dem xam-xam boobu ñoom dañ ko fi bàyyi dem jëggaani ko feneen fa jëli ñu ñëw ne leen ñëw leen xam-xam bi ñu am ngeen am ko ngeen jël suñu ay ressources produire ñu ci courant mais tamit yow nga ciy am ma ciy am ñu soog a jox sénégalais yi waaw maa ngi remercier au passage euh, vraiment Amadou Ly ci intervention courage bi mu mu jël waaw euh, parce que il a mis de l'eau dans moom moulin mhm. c'est-à-dire euh, du ñàkk volonté mais euh, jiital seen intérêt la imaginez tey man ma nekk directeur u Sénélec ma bëgg am xaalis par exemple ci mhm. importation wu carburant wu bateau bi mu nekk cent neuf milliards borom bateau bi man maa ko signé contrat ni mu ko bëggee mhm. ak clause yi mu bëgg mhm. mais su ma neexee man wala sama secretaire général wala sama benn cadre mu ne ko léegi jox ñu marché importation ñuy dugal carburant bien cent neuf milliards marché cent neuf milliards te cent neuf milliards yooyu est-ce que audité nañ ko mm. est-ce que amul surfacturation ñan ñooy indil bateau turki bi carburant mm-hmm. donc marché yooyu ngay ngay ngay mën a négocier dalay lay gënal yow Senelec nekk société national buy produire parce que bu fekkee ni société national buy produire la dafay leer xëy na marge yooyu doo ko doo doo ko mën a am. am si si. parce que dañu indi directement ci central yi. ñu mhm. lakk. Mhm. mais lan mooy intérêt ngay fay parce que mais West Africa bi ñuy fay euh, cent quarante milliards par année. Mhm. mais bato bi ñuy fay cent quatre vingt dix milliards par année. dix ans yi euh, euh, dix mois yi ñaata la. c'est c'est c'est de l'argent. cent cent cent quatre vingt dix milliards. parce que dix mois yi ñaata milliards la. multiplier ko par dix. par dix. est mille milliards. milliards c' est cent milliards par dix mooy mille pendant cinq ans mais est ce que gis ngeen dayoo xaalis boobu. bien sûr li tax ñii di riche rek di dem. dix ans yi. Sénégalais di wëy rek. dix dix ans yi ça te ça léegi cinq ans yi. ça te mm. fait presque mille milliards cinq ans yi. Mm. ça te fait presque mille milliards léegi West Africa vingt cinq ans la war a jëm. champs solaire yi vingt cinq ans la war a jëm te ñun ñoo joxe suñu cent hectares suñu naaj la donc yooyu ci yéen war a renégocier lay doon mais léegi njiit yi nekk ci ci ci direction générale yi parce que Sénélec est-ce que xam nga am na direction euh, des grands travaux mm-hmm. comme état ni mu amee direction des grands travaux mm. waaw te te ay cadres ñoo koy ñoo koy yore ñoom ñooy joxe marché yi léegi marché yooyu mais ñoom dañ ciy dugal seeni nit parce que yow tey jii mais man bëri na ñoo xam ne de l'extérieur bi nguur gi changé dañ ma contacter ñoo am nañu ay partenaires mën nañu indi fii ay champs solaires mais dem leen ne loolu man loolu laay combattre mënuma ko parce que loolu pour nga am ko lu yomb la. Mm. parce que tubaab yi ñu ngi xool naka la ñuy exploiter parce que ñun am nañu naaj ñoom amuñu naaj. Mm. dañuy ñëw ñu jox leen suñu suuf ñu lal seen ay panneaux teg seen ay batterie ay ingénieurs sénégalais ñooy liggéey ñu bàyyi leen fi dem France chaque ñoom seen contrat la ñu am leen di virer lettre de crédit lañ leen lettre de seen compte lay dem directement duñ ci duñ ci bouger maître donc intérêt yooyu boo ko naree jox tubaab bi tubaab bi aussi pare na pour delloo la dara c'est-à-dire corruption da cee am détournement da cee am euh, conflit d'intérêt da cee am délit d'initié da cee am moo tax ñuy réclamer un audit du secteur de l'énergie parce que secteur boobu mënuñu ko changer en reconduisant quand même l'équipe dirigeante qui était là-bas Pape Toby Gueye euh, Bitèye euh, ñooñu mais même waa Sénélec ils sont pas contents il faut pas créer un malaise dans l'entreprise mu ngi mel ni euh, waa Sabodala bërki démb rek ñoom dañu dañ dañu dañu demoon ba amoon sikki sàkk ci rupture bi ñu leen promettroon parce que tubaab bi dafa ñëw di leen noot ba di leen xëñ leen mm-hmm. fii tamit ñu ñëw gis la même équipe dirigeante ñu reconduire ko te cadre yi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex contre li jaar jaarul yoon li fa doon am ñoom tey jii dañu am gêne par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon xeex te ñu gën leen a dooleel sax parce que ñoom lañ fa lañ fa teg. ba tey nga baal ma de mais. Mhm. Euh, comment ñu jàpp ni. Euh,